téere bi ñuy jàngale si téere mustalaxil xadif muy matn nuxbatil fikar fi mustalaxi ahlil athar libni xajar al asqalaani jotaay bi weesu woon ñi ngi doon jàngale baat yi ñuy jottale xadisu yonent salallahu alayhi wa mu tënku si nañ ko jànge si sëriñ ba bañu ñu leeraloon baatu sami'tu lan lay firi ak nan lañ koy jëfandikoo baatu xaddasani ak xaddasana axbarani mu war a des nag la sa topp muy an ba ana wala an ba ani borom téere bi ne wal in baa u al in baa mooy su borom kii nettali xadis bi taalibe bi bu waxee si sëriñam xadis yam jàngee si moom di ko nettali ne an ba ani wala an ba ana baat boobu lan mu ne bi maana al ixbaar maanay ixbaar lay jël maana axbarani mooy kon su ne an ba ani mooy sëriñ ba moom moo déglu ñuy jàng muy muy déglu su dee moom moo doon jàng si boppam day wax an ba ani su fekkee ne keneen moo doon jàng danaan an ba ana mu ne nag illaa lu dut fi urfil mutaaxirina si xamle gu ko ñi mujj xamle mu ne fa huwa moom baat bii di an ba ani wala an ba ana lil ijaazati dañ koy jëfandikoo si ijaaza ijaaza mooy lu ñu yoonal nit ki ngir mu daal di koy nettali si téere xadis wala si ay nettali yu ñu nettali si xadis donte moom toogut ak sëriñam mi ngi mel ne sëriñ bi nga xamante ne day jàngale ba téere bi des tuuti amut jot gum ko mottalee mu ne yéen ñëpp yoonal naa leen ngeen nettali li des ci téere bi jëlee ko ci man wala boog sax mësu kaa jàngal waaye dafa jàkkaarloog moom ne ko lii de sama téere lii de samay xadis la may naa la ndigal nga daal di koy nettali di ma ko askanalee loolu la ñuy tuddee mu ne baatu an ba si al mooy ñu mujj ñi moom dañ koy jëfandikoo si ijaaza mu ne ka an baatu an baatu an tamit dañ koy jëfandikoo li si nammu al ijaza si baaxu ñi nga xamante ne ñoom ñoo mujj mooy al mutaaxiroon bi mu ñëwee nag daal di junj foofu an te waxoon na la an dañ koy nettalee xadiisu yeneen salaa sam te bëri na ay càllale yoo xamante ne boo fa demee dañ naan an fulaan an loola nag la ñuy tuddee al an anatu baat bii nag di an la la bëgg a firil lan mooy atte ak nan la ko boroom xam-xami xadis di jàngate mu ne wa an anatul muasiri ki nga xamante ne dafa bokk ak kami nettali ab jamono mooy taalibe bi jamononte naag sëriñam mooy ñoo bokk at yi ñu dund wala am na lu ñu bokkale si ay at yi ñu dund ba pare mën a dajee mën a dajee comme nit ki dund deux mille ba deux mille cinquante muy sëriñ bi taalibe bi dundu deux mille trente ba deux mille soixante dix foofa am na ay at yoo xamante ni ñoom ñaar bokk nañ ko dundu su fekkee ne ñoom ñaar dañoo bokk ab jamono waroon a mën a dajee waaye nag taalibe bi ba muy nettali di jëlee si sëriñ bi jëfandikoo wut baat ya ma tuddoon yay wane ne moom am na ak jokkalo digganteem ak sëriñam waaye dafa jëfandikoo baatu an te baatu an mën naa firi ne jokkaloo am na waaye mën naa firi ne jokkaloo amut nee na loolu su fekkee ne ki ko jëfandikoo bokk nag sëriñam ak jamono nee na maxmuulatun dañ koy dañ koy atte ala samaai sine ne ga wér na jokkaloo ga am na illaa ndere min mudallisin mu bàyyee ko si koo xamante ne day def tadlis te mooy kuy tuur lëndëm kon ngir ñu ne an dafa am ak jokkaloo comme baatu xaddasani wala axbara ni dañuy xool ñaari charte bi si jiitu mooy taaliba bi est ce que bokk naag jamono ak sëriñam waaye tamit est ce que war naa mën a jàngee si moom loolo bu amee te mooy ñoom ñaar bokk nañ at yu ñu dund wala am na ay at yu ñu bokk dundandoo ko bu ñaareel bi ñoom ñaar nekk nañ si bërëb yoo xamante ne ni ku si nekk war ngaa mën a giseeg sa moroom ba pare taalibe ba nekkut mudallis te mooy chartu bu ñaarel ba nekkut mudallis boobaa anam dañ koy firi ak jokkaloo mu ne waqiila waxeef na yushtaratu dees na chart subuutu liqaa'ihima mooy saxuk seen ak dajee walaw marratan donte benn yoon la mu ne ngir ñu jël an ana bi diggante sëriñ beeg taalibe bi il faut ñu dajee doonte benn naka la ñuy xamee ak dajeem dañuy xool yeneeni xadis ya mu jëlee si sëriñ bi suñ si gisee benn xadis benn xadis képp bu muy wax ne sama sëriñ déggee naa si moom foofa dañuy xam ne kon dajee ga moom wér na waaye fekk amut kon ana ana bi duñ ko jël mu ne wa huwa al muxtaar loola mooy li ñu tànn waaye fii nag tànn gi moom xañ na su dee dañ ko firine mooy li gën a kawe waaye su fekkee ne ngir wëral xadis bi moom déedéet loola wérut saa yu ñu xamee ne ak jokkaloo mën naa dox diggante taalibe bi ak sëriñ bi donte sax gisuñ fuy am ak firne na ak jokkaloo am na ba pare taalibe bi daanul woon def li ñuy tuddee ak tadlis boppa xadis bu mel noonu dañ koy firi ne ak jokkaloo wér na fa ndax loola mooy li jumhuru ahlil ilmi di wax amma nag su fekkee ne nag dajeega moom wóor nañu comme ni ko al imaamul buxaari di ko charte loola dañ ñaan mooy li gën a dëgër moo tax dañ ñaan charte buxaari charte la si xadis bay gën a dëgër waaye du chart ngir ne xadis bi day wér mu ne wa atlaqu ñoom boyal nañ boroom xam-xami xadis almushafahata baatu almushafaha mooy shafahani fil ijazati si ijaza ijaza buñ ko waxee mooy joxe ndigal si nit ki mën a jëlee si yow la nga jàngee si sab sëriñ donte moom toogut si soron daal di koy jàng mu ne fil ijazati al mutalaffaz al mutalaffadi biha si ijaza bi nga xamante ne nii ngir ñu xam ko kàddu kese la ndax ijaza benn mu nekk kàddu wala mu nekk bind sëriñ bi bind si taalibeem ne ko man de man ma moom téere bi maa ko jàngee si samay sëriñ yoonanal naa la nga daal di koy jàngee si man di ko nettali wala mu jàkkaarloo moom wax ko si ay kàddu su fekkee ne jàkkaarloo ba moom moo am boobaa taaliba ba buy jottali xadis bu ni mel danaan shaafahani lay jëfandikoo mu ne wal mukaatabata baatu ba mooy kaataba nii bindante naag man ñi ngi ko jëfandikoo mu ne fil ijaazati si ijaaza boo xamante ne nii al maktubi biha dañ ko bind te waxoon naa la benn ijaaza ñu daal di koy bind wala ñu daal di koy yëkkati si kàddu su fekkee ne kàddu la shaafahani lay wax su fekkee ne bind la kataba ilayya lay wax mu ne washtaratu chart nañ ñoom boroom xam-xami xadis fi sixatil munawalati ngir munawala daa di wér te munawala mooy nit ki ñëw rek yót la ab téere wala mu yót la ab xadis est ce que loola da si jëlee ne man lii daf ma ko yoonalal pour ma koy nett li jëlee ko si moom mu ne ngir loolee daa di wér charte bi mooy iqtiraanaha mooy mu lënkaloog bil idni si ak yoonal bi riwaayati si nettali mooy dalay jox téere bi waaye da siy boole ne yoonalal naa la nga daal di koy nettali jëlee ko si man waaye jëmmi jox rek la loolu kenn mënu kaa firi ne daf laa yoonalal nga koy nettali si jëlee ko si moom ndax jox kese mën naa firi ne daf la ko may mën naa firi ne daf la ko abal kon jox bi day ànd ak yoonal gum lay yoonal nga jëlee ko si moom di ko jottali mu ne waxiya su fekkee ne loola nag am na mooy jox na la ba pare boole si ak ndigal nee na arfau moo gën a yëkkatiku anwaail ijazati si xeetu yoonal yi nga xamante ne nii boroom xam-xam yi tudd nañ ko te mu nekk anam bu wér bu ñuy nettalee xadiis yu yonentu sallallahu alayhi di ko jàngee ndax waxoon naa la ne mooy yoonalal na la nga jëlee si moom lii di ko wasaare benn mu yoonalal la kese te joxula la lam la waaye bu si boolee nag jox la lam lam la yoonalal boobaa nag loola lu kawe la si façon boobu mu ne wakada niki noonu ishtaratu charte nañ ñoom boroom xam xame xadis ba léegi al idna ak yoonal fil wijaadati si loo xamante ni nit daf ko fekk mooy jékki-jékki rek fekk ab téere bu tegu nga xam ne lii sa téereb sëriñ la wala fekk ab këyit bu tegu nga xam ne lii sa këyitub sëriñ la est-ce que loola da nga fay sukkandiku di ko nettali di ko askanale sa sëriñ mu mel ne da ko jàngee si moom déedéet balaa muy wér day fekk ne moom jox na la si ndigal kon il faut mu am ak ndigal ni ko doon tamit wal wasiyati bil kitaab ak ndénkaane gum dénkaane téeréem cheikh bi di waaj a faatu ne sama téere yi yépp muy sama xadis yi yëpp balaa may faatu na ngeen ma ko joxal diw si samay taalibe loola firiwut ne buñ ko ko joxee rek moom dafay sukkandiku di ko nettali di ko jëlee si sëriñam mel ne dokaa jàngee si sëriñam feek àndut ak ndigal gum ko boolaale ne moom jox naa ko ko waaye yoonal naa ko mu koy jëlee si man di ko jottali su dee amul ndigal loola dénkaane kese du firi ak ndigal ndax dénkaane mën naa am daf ko ko dénk ngir mu daal di ko koy sàmmal gannaawam mu ne wa fil ilaami ak ni ki noonu tamit li ñu tuddee al ilaam mooy xamal la ne lii téeréem la sëriñ dana ñëw si taalibeem ne ko lii de sama téere lii samay xadis la jëmmi xamle gi kese du doy taalibe bi sukkandiku si ngir nettali loola jëlee ko si sëriñam mu mel ne dagaa jàngee si moom feek àndut ak li ñuy tuddee ndigal la su ndigal li jibut moom boobaa jëmmi xamle ga du doy moom kese moo tax mu ne wa illa su fekkee ne loolee ma tudd yëpp te mooy alwijaadatu wala alwasiyatu wala al ilaam alwijaadatu mooy fekk goo fekk mbindam sam sëriñ te nga xam ne lii sa sëriñ moo ko bind wala fekk goo fekk téere boo xamante ni sa sëriñ moo ko taalif te nga xam ne lii tée téeréem la alwasiyatu mooy sa sëriñ dénk la téeréem bii wala mbindam yi al i'laam sa sëriñ xamal la ne lii bindam la wala téeréem la mu ni ñetti yi yépp su fekkee ne àndut ak ndigal gum lay digal ak yoonal gum lay yoonalal nga mën ko jëlee si moom di ko nettali mu ne loola bu amut wa illaa bu amut fala ibrata bi dhalika amut benn consideration kenn du ko nangu su fekkee ne taalibe ba daf see sukkandiku di ko nettali loola kenn du ko jël dañ koy delloo te du bokk si xadis ya nga xamante ne mën nañ ko ko nangul loola nag nee na boobaa kal ijazati day niroog li ñuy tuddee al ijazatu al amma boo xamante ne dañ ko généraliser ijaza amma mooy nit ki ñëw ne yoonalal naa jullit ñëpp ñuy jëlee si man xadis bii di ko nettali ñaata jullit ñoo nekk si àdduna bi ba jullit di jullit ba jullit àdduna di tukki ñaata jullit ñoo mën a nekk si àdduna bi loolu kenn xamul nu mu doy loolu dafa nekk lu général loolu kenn du ko nangu mu ni ko noonu tamit day niroog li ñuy tuddee al ijazatu al amma ni ko noonu tamit day nirool walil majhul ijaza boo xamante ne dañoo réeree lenn si charte ya wala lenn si ya ko war a tënk muy ponk ya ndax borom téere bi nga xamante ne ni moom moom moom téere mën naa ñëw ne man de lii dama koy yoonalal yow mii ma jàkkaar lool di sama taalibe te tudd Abdullah su fekkee ne taalibeem yi benn Abdullah rek moo si nekk kooku xam nañ ko waaye su fekkee ne nee na yaa Abdallah yow Abdallah yoonalal naa la nga jëlee si man téere bi di ko nettali te biñ xoolee taalibeem ya ñi tudd Abdullah du kenn du ñaar du ñett kan la si jublu kooku kenn xamu ko loolu dañ ko réeree loolu kenn du ko nangu wala bokk mu ne moom yoonalal naa Muhammad te ñu xam ne Muhammad mi kenn la si ay taalibeem yoonal naa ko mu daal di jëlee si man saxiix daal di koy bayoon noonu te ñu gis ne téeréem yi bokk na si saxiixul Buxaari jàngee na ko si ay sëriñam si anam bu wér saxiixu Muslim jàngee na ko si ay sëriñam si anam bu wér kan ban saxee la si jublu loola it lu ñu réeree la kon boobaa façon booba du wér mu ne walil maadumi ak ijaaza boo xamante ne dañ ko defal ku ku nekkut comme borom téere bi wala borom xadis bi ñëw ne yoonalal naa ku juddoogut bu juddoo mu daal di jël sama téere bi di ko nettali waaw ku juddoogut mooy kan loolu moom kenn du ko nangu kañ la nangu ijaaza lil maadum mooy suñ ko laafee si koo xamante ne ni dafa am ba noppi comme ku ñëw ne yow mii ma jàkkaarloo yoonal naa la nga jële si man téere bi wala xadiis bi ak képp ku bàyyi ak képp ku nekk sa sa géño képp ku nekk sa doom donte sa doomi doom la sax te mën naa am sa doom yooyu am na ñoo xam te ne juddooguñ lu mel noonu ñenn si borom xam-xam yi nangu nañ ko moo tax mu ne alal asax si li gën a wér fii jamii dhalik si mboole seen loola nga xamante ne nii tudd na ko bi mu jugee si loolu nag mu ñëwaat beneen bunt bu ñu tuddee baabul asma muy dabtul asma mooy naka la ñuy maasee tur yi ak naka lañ koy tënkee ak naka lañ koy maîtriser ba ak njuumte du si am mu ne summa nag topp gannaaw loolu arruwaatu ñey nettali xadis ya in ittafaqat su fekkee ne dafa dëppoo asmaauhum seen tur wa asmaa'u abaihim ak seen tur yi baay ya fa saaidan ba mu gën a kawe mooy seen tur yi baay ak seen tur yi maam maamaati maam mu ne waaye nag waxtalafat mu wuute ashxaasuhum seen jëmm ya loola nag xam-xam boobu la ñuy tuddee ne na fa huwa loolu moom la ñuy tuddee al muttafiqu wal muftariq mooy lu dëppoo te dëppoo ga mooy dëppoo am sa tur waaye nag teqalikoo ga mooy teqalikoo ga am si jëmm ya comme ki tudd Muhammad ibnu Abdirahman am keneen ku tudd Muhammad ibnu Abdirahman ñaari jëmm yu bokkut la doonte tur yi moom ak turi baay yi benn bi la su fekkee tamit turi maam ya tamit dafa dëppoo te jëmm ya bokkoo yi bokkoo wut loolu la ñuy tuddee al mutafiq wal muftariq loolu boroom xam-xam yi dañ koy jàngale ngir lan kenn bañ a ñëw gannaaw loola yaakaar ne lii benn jëmm la te ëpp na benn jëmm mu ne wa in ittafaqat su fekkee ne dafa dëppoo al asmaau turiya xattan nañ koy bindee waaye nag waxtalafat mu wuute nutqan nañ koy liiree comme baatu ali ak ulay aliyun ak ulayun nañ leen di bindee amut dara lu leen teqale waaye kañ ngay mën a jàngee lii xam ne ali la jàngale xam ne ulay la soo ko waxee sa kàddu mu ne loolu nag la tuddee al mu'talif wal muxtalif mooy lu dëppoo si bind ga al muxtalif waaye wuute na si nañ koy tuddee loola it xam-xam la si buntu xam-xami tur yi loola boroom xam-xam yi leeral nañ ko mu ne wa in ittafaqat su fekkee ne dafa dëppoo al asmaa'u tur ya waaye nag waxtalafatil abaau turu baay ya daal di wuutee kii muhammad la kële muhammad la waaye ke muhammad ibnu ahmad la kee muhammad ibnu ibrahim seen turu baay yi ñoo wuutee aw bil aksi wala safaan wi la turu baay yi ñoo dëppoo waaye ñoom seen tur yi dafa wuutee kii tudd ibrahim kee tudd abdullah waaye nag seen baay yi ñoom ko bokkale ñoom ñëpp ibnu ahmad lañ boobaa nee na loola la ñuy tuddee almutashaabih almutashaabih loola nag di buntu beneen boo xamante ne nii buntu bu xaw a jafe la si buntu al asma te loolu boroom xam-xam yi leeral nañ ko ngir bañ a am ak njuumte gu nit ki di si tab bi téere bi si gën a yaatal nag mooy téere Ibn Maakuula muy téere boo xamante ne nii yaatal na si lool si bunt bi donte ñi taali si buntu bi ku moom bari na lool kon foofu la ñuy taxaw si jotaay bi di leen jox dig beneen jotaay incha allahu taala hada wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira